d'accord léegi soo ñu doon wax kuy DJ Paco léegi looy wax. bon DJ Paco c'est un jeune animateur en même temps technicien. Mhm. je suis natif de Nioro Drip Rip fa laa juddoo yaroo fa fa laa jàngee. Mhm. et puis euh, nekk ci benn rajo bi ñuy wax RIP FM. Mhm. comme technicien en même temps animateur. bon je me nomme Pape Fall mais comme on est des animateurs donc yaa ma gën a xam ni ñuy wooyee. waaw yaa ma gën a xam gis nga. <laughs> bon loolu laa la mën a wax en grosso modo kooku mooy DJ Paco quoi. Mm-hmm. waaw su doyal ma doole ah wala doy na. waaw dolli dolli doole <laughs> du doy du doy. waaw non <laughs> bon loolu laa ci mën a wax ah. parce que DJ mm-hmm. Paco comme li ma la wax ni animateur la technicien. Mm-hmm. nekk nag jeune tout tànk. bon di jéem a def comme loo xamante ni peut-être amagul ci milieu bi ñu nekk parce que kenn ku ci nekk da ngay jéem a créer quoi comme yow nii xam nga. Mm-hmm. da ngay jéem a ñëw teg suñu yëf yaa ma gën a xam indi say say concept genre machin truc. Mm-hmm. teg loo xamante ni kenn teg ko ci. Mm-hmm. donc je pense bien que ni noonu la fay demee quoi. yaa ma d'accord léegi avant DJ Pako. avant DJ Pako. maanaam Pafa lan la woon quoi lan la woon lan la doon def da doon jàng wala da doon liggéey. wala bon j'étais élève oui parce que nee naa la euh, jangé école primaire bi ñuy wax Cheikh matiba en mm-hmm. fait fala def ba am sama 36 en sixième dem ci ben Saint Mamou Ndari aussi tam mm-hmm. dem fa ba sama BFM première année ma def mu échec xam nga rek mbirum examen ya ma gëna xam. non mm-hmm. non ñu nekk ci nekk ci ba yalla def bon jàng nañ sori nañ amuñ baccalauréat mais nak alhamdulilah puisque dem nañu ben instant mais euh, nekk nañ ci yenn euh, business yo xamanteni ni nii mënatuñ.

dañ ma fa dugal wala maa fa dugal sama bopp mieux vaut que ni ah, bëggoon naa ko. puisque yàgg naa suivre ay pas mal de rajo. Ah, xam à travers le pays di leen suivre. Euh, que ça soit muy euh, journaliste yi genre affaire yooyu noonu. Mm-hmm. bon ñu dem ba ci biir en euh, fait comme ni ma la ko waxee sànq yor benn sonorisation. Mm-hmm. après laa radio ñu jënd benn sono boo xamante ni après amuñ ku leen ko gérer. Mm-hmm. après ñu mettre ma en contact avec ñoom pour ma gérer sono bi. par la suite ci laa yor sono bi xam nga di di di di dem ak moom di dem ak moom ñu dem ba benn instant ñoom seen biir ñu soxla benn élément comme technicien. puisque benn technicien lañ amoon te gis nañ euh, xam nga rek boo nekkee ci genre table mixage yi câble genre affaire yooyu. Mm. bon ñoom ñu yaakaar ni war naa fa mën a toog pourquoi pas gérer Bonjour, bon dama toog sama gàlle euh, vers 17h je me rappelle très bien. Mm. bon puisque miinoon naa rajo bi dama doon ñëw fekk animateur bi animé nii ma tooñ ko. Euh, astafurla animatrice parce que auparavant benn gel moo fa nekkoon. Mm. ku ñu wax Sista ma koy nuyu de passage mu nekkoon fa di def émission bi may def nii moom moo ko doon def Rip Show. Mm-hmm. donc euh, ma ñëw tooñ ko nii après génn demaat affaire yooyu daal après gars yi dem ba ci biir xam ni kii war na mën a pourquoi pas doon suñu deuxième technicien après ñu woo ma. Mm-hmm. ne ma léegi dañoo bëggoon su fekkee ni di nga mën a ñëw intégré wu genre affaire yooyu noonu. Mm-hmm. bon ma tegal leen samay principe. puisque on est des jeunes bëgg suñu avenir bëgg tamit euh, loo xamante ni nii suñu koy def bon mën naa ne ñëpp duñ apprécier mais la majeure partie dinañ apprécier. bon ñu nekk ci genre affaire yooyu ñu wax ma ko man leen waa t'inquiète comme man lépp euh, sama sama maman la man xaaral naa ci discuter ak mère puisque bi may bàyyi jàng bi ma ko yëgee neexul ko. et puis mi ngi fagoon ni xam nga rek damay nekk benn koo xamante ni day nekk ci rue bi xam nga di déambuler comme ça. bon ma waxtaan ci ak moom mu ne ma bon xam nga rek comme sunu sunuy parents la ñu am. Mm. après elle m'a encouragé bon ma ne ko waa t'inquiète je vais essayer de voir ce qu'il va donner quoi après par la suite ñu nekk ci affaire yoyu ba mu jour di quoi après ñu intégrer à la radio. Hmm. nek ci nek ci technique bi nek ci technique bi bon. un certain moment ñuy dem ay reportages tam pas mal de reportages yo xam ni def nañ ko. Hmm. après ba nous nous nous nous nu émission bobu puisque gel bi après moom dafa nek di présenter journal. Hmm. après ñu jox mu quoi. Hmm. c'est tout xam <laughs> ñun moom fu ñu dee fii te ñuy ray <laughs> yaa ma gën a xam. léegi maanaam euh, gannaaw bañ la joxee émission nga nekk technicien ci rajo bi. Mm-hmm. voilà léegi bon nan nga dundee cadre animateur parce que tamit animateur bi yow yaa ko poussé sa bopp wala dañ ko poussé.

il faut tay nga lanate la woon je pense bien que ni communiquer la. ñu tijjee micro bima waré ñew man sama jëm bopp tijji micro dama don lox. bul sonn te pourtant kenn gisuma <laughs> j'étais seul dans mon studio man kenn. oui comprendre nga. Ah. mu ne ma liiral communiqué bi gaañ ça va après dem bureau tok hmm. ma lire ko mu dégg ni bat bee lox. Hmm. ñewat dama li il fallait ko légui xam nga nu ñu def dang koy enregistrer dagg ko boobay gën a kii mais yaa ngi lox genre affaire yoy hmm. bon mané waaw petit à petit l'horizon fin sonné dinañ ko assumer quoi nu mu mënti demee. waay waay waay gis nga mais nak yombul won quoi. yombul woon puisque bi may njëkk a toog euh, gel bi bi mu nekkee ci euh, rédaction bi intégré wu. bon mm. Souleymane dama non tok une heure de temps di ko sélectionné du wax. <laughs> yàlla bi ñu tiim xam na loolu rien que ragal micro gis nga temps bi may sonoriser damay dem ci programme sax mais c'est mm. très rare laay wax mm. parce que bu ñu dégg Paco wax ji nii mu bari dañ naan bon dafa bëri wax genre mm. mais tamit am na tuuti tuuti tuuti tuuti complexe li gars yi naan toq complexe am mi ngi ci moom donc dama doon bàyyi xel ñi may déglu te et puis rajo boo ci nekké di wax di baye xel ñu lay dégg rek. Mm. bon je pense mais que ni doo dem. do dem mais melni ku nekk sa néeg tok ak ah. Souldia happy. xam nga man sama émission noonu lay demee. Ah, waaw gis nga ma ngi tok grand place wala maa ngi toog ay copains yi. waaw gis nga ah, mooy loolu yaa <laughs> par la suite noonu la mm. démé yombul won nak mais mm. ñu ci dem ñu ci dem doyen ñew ni ma pourquoi pas nga aj micro mais dédicace genre ma koy jéngu. di des wax ay gaf nak gat yaa ma gën non non mais donc noonu ndànk ndànk gars di joyanti di joyanti ba par la suite euh, je pense bien que ni léegi moom alhamdu alhamdu mooy loolu <laughs> voilà donc donc gannaaw dem nga ba min affaire yi dem nga ba adhéré wu dem ba nga ba am sa émission bop hein am say propre auditeur auditrice ah hein, mhm. am say fans fans club ah voilà légui manam <clears throat> cadre animation bi maanaam comme animateur radio. Mm-hmm. yow maanaam nan nga koy dundee daal nan nga koy dundee euh, ci biir dëkk bi ah, euh, nan nga koy dundee ak say fans nan nga koy dundee ak auditeurs yi auditrices yi quoi. Mm-hmm. bon cadre animation man je pense bien que ni comme li ma la wax sànq parce que euh, métier bi dafa dafa sensible te yombul. Mm-hmm. puisque boo ci nekkee di nga dégg lu nekk. Kamran, et puis kenn ku ci nekk dalay gis bëgg xam kan mooy euh, DJ pako wala bëgg xam kan mooy Soldia mm. euh, sànq wax nga ko te démb rek euh, man amna naa ci témoin ñëw fekk ñu garam place bi juste pour bëgg photo ak yow bëgg li cay xam mais métier bi dafa am ñu ci dugg pour wut buzz nañ ma baal nag sama mbokk animateur yi puisque xam naa instant bi ñu ngi may bàyyi xel mm. mais am ñoo xam dañ ciy dugg pour bëgg buzz bëgg bon ñu ne bon kii moo nekk Univers FM wala kii moo nekk rib FM. bon su génnee ci town bi di am nu muy nu muy nu muy nu muy nu muy doxee. je pense di doser quoi. mais loolu jaarul ko ci quoi puisque man su ma nekkee euh, rajo. Mm. xam nga mën naa ne DJ Paco la mais su ma génnee dans la rue. Mm. Pape Fall lay dégg. waay comprendre nga mm. du ma génn ba wane ni man mii suis un animateur wala suis un technicien wala suis à la rajo genre du ma ko def. puisque des fois damay romb ni sax bu ñu nee kii mooy Paco dañ naan ah bon kii la. ak ñu wuree bi caar gis nga ak tuutiwaay tuutiwaay bi nii puisque <laughs> man am na ko ne ma <laughs> am na ku ne ma mais pourquoi yéen animateurs yi ngeen tuuti waay ma ne ko yaa ko dégg barki démb Njaay laa ko dégg yaa ngi nañ ma ko <laughs> ku ku dégg ku dégg Paco yaakaar ni Paco euh, benn nit la koo xamante ni nii euh, comment dirais je ma ko mën a waxee dafa toll noo xamante ni nii mooy loolu te alors que ni yeggul ci côté boobu noonu. Hmm. puisque pour gars yi bàyyi ci xel ci métier bi xam ni nii euh, métier bi ñu nekk yombul di nga ci dégg lu nekk tamit. mais tamit boo nekkee ci société bi je pense bien que dafa am noo war a dundee ak askan wi. Hmm. donc ñëpp lay bëgg a xam ñëpp lay bëgg a jege ñëpp ay bëgg am seen numéro. puisque am na gars yu may tooñ ñu naan ma pourquoi sooy animé ñu naan la ci suuf affaire yooyu <laughs> loolu yëpp seen numéro la ñuy laaj genre après bëgg xamante ak yow. mais tamit war nga ma wax lu ci suuf lu ci suuf. bon ci suuf dara nekk ci sool yaa yaa ma gën a <laughs> xam ci suuf dafa ma dégg eh, sol jaay ci suuf affaire yooyu te man li ma ci gën a jaaxal mooy doo dégg doo dégg maanaam benn Baye Fall bu ne eh, ci suuf non non non. Mm. ñu ne sol jaay ci suuf. Mm. yooyu rek ngay dégg. puisque euh, dañ lay bëgg a xam. bëgg am sa numéro di la woo gis nga bi ñu demee ba toog sax ñoom fekk Souldia mi ngi def buzz à travers la rajo mm. xam nga Kaolack yëpp euh, lafcat Souldia la ñuy wax Sine Saalum ñëpp a ngi naan Souldia ah mm. euh, tous du bois ma laal ma laal bant ah. <laughs> laal bant <laughs> waaw laal naa bant. <laughs> comprendre mm. donc euh, et puis moom après day bëgg su génnee dégg beneen moromam naan. sul jaar li muy def dafa neex genre affaire mu ne pourtant sama xarit la maa ngi ak numéro ah bon genre yooyu bëgg rek xamante ak yow saafante ak yow bëggee mais am na nga xamante nag beneen côté bi yaa ma gën a xam dafa am lañ ci bëgg dafa am lañ ci bëgg bon léegi lan nga wax animateur yu nga xam ne suñ demee ba xam ne ni instant bi am na ñetti auditeurs yu leen oo wala ñetti auditrices yu leen oo ñu commencé génn ci mbedd mi taw yi wala tamit seen fan si suñu leen ooyee xam ñu leen bañ a jël wala ñu leen wax ay wax yoo xam ne nii xam nga wax yu gàtt wala wax yu vulgaire yoo xam ne xam nga <laughs> yaa yaa ma gën a xam yow dil bi nu muy demee mhm. léegi lan ngay wax ñooñu quoi lan ngay wax genre animateur yooyu quoi bon loolu ñi koy def je pense bien ki ni dañoo xamul quoi puisque hmm. man du ma rejeter appelu nit te man sama numéro soo ma ko laajee sax ma jox la ko en direct te euh, euh, dara taxul may wax man su may animé peut-être xam naa amoo audace euh, di ma déglu mm. euh, mais y a pas mal euh, d'auditeurs wala auditrices yu may woo fu nekk comprendre mm-hmm. di la woo mais soo demee tam bi ngay commencé ay benn ngay am ñaar di nga dem ba da ngay am ay milliers de milliers yi lay woo mais bu mu tax tam xam nga nga comme ni nga waxee xoggali ko quoi commencé aji mbagg soo génnee di ko wane soo rombee ci terrain bi nii xam nga jéem a mel ni yow rek takk ko di jaay xam nga di wane ni maay soldat loolu et puis dafa am ñoo xamante sax dinañ la ci jéppi uh-huh. man dama yaakaar ne nit ki ni la yàlla bindee euh, noonu nga war a mën mel ak fépp foo mën ci nekk mm. nga simple oyof comprendre nga mm. euh, mel ni mbaxanaak daal quoi mm-hmm. parce que Euh, boo ci nekkee am noo wane ñu bëri dinañ la sikk dana am ñu la ci bëgg nag mais am ñu bëri dinañ la ci sikk ne mm-hmm. ba mu nekkee ci rajo bi la commencé mm. jaay affaire mais bi muy jaar fii di jàngi di nekk ci ngénte yi gaayan di di di di poussière nekk ci baalu poussière yi di animé waaw gis nga boobu mooy loolu day doxee fële ba fële mais léegi nekk na animateur xaalis bi dugg na muy jaay affaire non non loolu je pense bien que ni soo koy def mm. danga xamul mm. mais soo xamoon yaakaar naa ni doo ko def ñi koy def tamit amul benn sens doo ci jëlee dara amul sens euh, la moindre des choses mooy nga wàccee sa bopp comprendre soo nekkee ci rajo bi bégal askan wi parce que rajo loolu la mm. rajo divertiru mm. boolente ay doomu aadama puisque sànq bi may nekk ci kër gi avant may ñëw mm-hmm. dégg naa benn gel bu la woo la su xamante ak diw lépp yow la dëgg la man tey y' a mal ñoo xamante ni xamante na ak ñoom c' est grâce à toi euh, mm-hmm. Soul. groupe euh, Souldia bi ñu bokk. ma leen di nuyu gars yëpp de passage ñoom laay xam nga mm-hmm. Elimane Fatou Souldia Khady. Colim jum parce que bari nañ tellement que macha allah muy ñu bax ñoo ñoom tëpp suma ma leen xamee tey grâce à yow la donc yow sa oyof ak sa mbaax moo waral loolu. Hmm. donc soo meloon neneen tam du ñu xamante. ba tey ñu toog fii di def di def duo wala di am laaj ak cant. non adda amu solo adda amu solo ñi koy ñi koy def daal di di génn ci dëkk bi di puukaree wu ne man maay animateur euh, univers amul sens. xam nga tey jii man sama fekkee biir studio Baye Fall laay doon. waaw gis demee koñ ba baay Fall laay doon. non ça se va ça se gis nga gis nga sax ba may xëy si man damaa jël fëgg benn pantalon benn mbubu rek. dugg ci dugg ci dugg ci dugg ci dugg ci ah, waaw mooy loolu. l' essentiel bi mooy. Mhm. Euh, heure boo toogee si antenne bi na nga def loo xam ne nii nit ñi dinañ ko bëgg. dinañ ko apprécier nit ñi nit ñi dinañ ko apprécier. Mhm. nit ñi dinañ kontaan ci li ngay def. Mhm. yaakaar naa loolu moo am solo ah. c' est ça l' animateur nekkul si solin. non non non nekkul ci. Euh, doxin doxin. du foofu ne ci kii la quoi <laughs> studio la. studio la affaire bi studio mooy li ma la sànq rek moo fi nee daal DJ Paco laa. su ma génnee. Fall bi mbir mi micro bi la. micro bi la micro bi la. <laughs> man man loolu laa xam quoi. nekkul mhm. génn si mbedd bi di taaw yi xam nga di yaaw yi xam affaire yooyu. Mhm. say fan suñ la ooyee doo leen jël. Mhm. wala tamit nga leen di négligé xam nga. mooy mooy loolu man sama fekkee sama koñ des fois kiloot bu gàtt laay sol. waaw ah pourquoi pas toog grand place ak sama yenn sew yi <laughs> toog naan café naan ataay ak gars yi. happy no stress quoi no stress. c'est loolu dafa neex mais soo toogee fii bon nga def fulla ak kontaan. après soo génnee Madame, loolu nga nekk ci business. Mm-hmm. maanaam yow euh, damay question animateur bi nga mm-hmm. bon am na ñoo pour buzz. ah oui ñoo pour jigéen <laughs> am ñoo dañ ci pour xam mm-hmm. mais mais il faut que nit comprendre animateur. animation. métier quoi. métier bon yow léegi dama lay laaj de tout dama lay laaj benn instant nii animation bi lan ak lan nga ci bëgg a lan ak lan nga bëgg a def loo xam ne nii ëllëg soo toogee di nga ne ah lii de rajo laa ko amee mhm. wala sama kër gii de ah rajo. rajo moom a ko may. moom ma ko may. Ah yow léegi yow lan ngay lan sa projet yow ci ci ci ci kii ci ci métier bi quoi ci métier bi. Ah, <laughs> absolument donc euh, ah kenn ku ci nekk fa nga nekk yaakaar naa ne da nga ciy bëgg a gis sa bopp tedd ci aussi euh, def loo xamante ni nii. Mm. tey jii soo toogee da nga ne lii euh, métier bi ma nekk moom ma ko may. Mm. puisque. mooy suñu métier dañu ko bëgg def tey ñu nekk ci. bëgg nañ ni muy lu ñuy sol wala muy dëkkuwaay muy lu ñu doxantoo lim ci ci mën doon. Mm-hmm. bëgg nañ ko métier mm-hmm. non seulement que amaguñ ci dara euh, mais Dieu merci ñu ngi mm-hmm. bon projet yi ñu ci bëgg tamit bon def loo xamante ni peut-être parce que kenn ku ci nekk da ngay jéem prouver. prouver soldat day bëgg a prouver def lu kenn deful. parce que euh, <laughs> la fois passée dégg la nga ne loolu kay dama koy wax ñëpp dégg ko. <laughs> donc xam nga ñun yàlla def na su ma uh-huh. commencé. su ma mm-hmm. commencé dix heures. Mm-hmm. matinal bi lundi ba jeudi. kenn du laal animateur yeeg. Mm-hmm. kenn du laal. waaw xam nga ñun yàlla def na ñoro benn rajo foo nekk. Mm. donc. Euh, du du du question que dañuy euh, teg suñu bopp fu ñu yeggul wala di wax loo xamanteni ne mais kenn ku ci nekk fa nga nekk da ngay bëgg a def lu kenn deful. Mm-hmm. bon métier bi da nga ciy nekk pour euh, am ci loo xamanteni tam ci ngay suturloo mais nekk un animateur boo xamanteni ne wala quelqu'un boo xamanteni ne mm. même pas bu dee animatrice sax comme genre sister Aïda boobu. Mm. nga teg loo xamanteni kenn tegu ko. Mm. puisque di nga dem ba xamanteni ni nii euh, di ci am lo amul mais dama bëgg ci genre station yi ñu nekk comme yu mel nii puisque da ngay da ngay gis animateur yoo xam ne dañ lay xaw a négligé. Mm. jéem la duñ la tollale ak journalistes yi technicien yi te xamuñu métier bi dafa metti trop dafa metti trop. donc fii deux heures de temps trois heures de temps di ngal ngal yi pététété di wax loo xamante ne kenn xamul. donc pour gars yi bàyyi ci xel chef de station yi. xam mm. nga xam ni ñun animateur yi. ñoo xam nga ñoo fi nekk sans ñun. Mm. rajo bi di dox puisque mën naa ne lu bari liy dugg ci rajo bi ci ñun lay jaaree. Mm. tey euh, sunu yës bi ngay def 9 ba 12h. Mm. gars yi dañuy xam ne ñëpp lay déglu. sponsor yi commencé ne bon man fii su ma fi jàllalee sama produit. dina am ay clients. pourquoi pas mais ñu jéem a ñëw xool service commercial. comprendre nga yi def benn partenariat accord bi ñu signé ko. après seen i pub di jàll. grâce à animateur bi. mais tey xam nga ci biir journal kenn dafa publicité. non non ah. non kon jeex na léegi da ngay ñëw toog yow animateur bi di animé. <laughs> Mm. di def loo xamante ni kenn defu ko après yow euh, tu te retrouves que ni sentiroo sa bopp wala teguñ la foo xamante ni mooy loolu wala ñuy dem ba ci kanam muy am yenn faay yi man loolu. Mm. Euh, dama koy condamné quoi Souldia. Mm. dama koy condamné animateur yaakaar naa ne war nañ ko mën a teg foo xamante ni nii. bon. haut niveau lay doon quoi gis nga puisque hmm. moom mën naa ne dina dugal recette yoo xamante nii ci biir hmm. tey boo yoroon serveur di lay woo ci appel loolu ci recette rajo bi la jëm hmm. euh, communiqué yi ñëw wala ay spot euh, publicitaire euh, comme on dit yëpp di ci jaar donc dina dem ba benn instant yow war nañ mën a toog ne mais kii li muy def nii war na ci gis boppam mais pourquoi ñu jéem xool lu ñu yokk waaw waaw gis nga. waaw jéem a a duuf duufal sa poste tuuti sax. mooy loolu waaw des fois nga dem ci kanam di doxantoo benn xaama taxaw taxawal benn R R R plus. waaw ñu bii bii ci animation bi la ko jëlee. war na mën a nekk loolu yëpp ci rêve yi la quoi mais yàlla baax na. Hmm. Mm-hmm. <laughs> d'accord <laughs> euh, euh, animation. Mm-hmm. animation comme par exemple tey jii nii xam nga déjà musique bi. musique bi ñuy teg ñëpp ko yor seen téléphone yi. ah oui ku ko bëgg mën nga télécharger tamit waaw mais tamit lan moo tax lan moo tax ñu ñu jël benn di DJ ko teg ko ci antenne bi jox ko benn deux heures de temps wala benn trois heures de temps muy dawal ay dédicaces di maye nit ñi di ko oote loolu euh, loolu laa bëgg a xam bon lu tax. lu ko wundu quoi. lu tax ñu def ko quoi lu tax ñu def ko ñu créer ko quoi. Ah, bon mm. comme li nga wax sànq rek gis nga son moom ko ko bëgg. Mm. yaakaar naa ni euh, téléphone yaa ngi fi offre yi mën nga dugg sa sa sa mm. si sélection yu nice di déglu sa son. Ah. mais tey bu lay neex ngay déglu rajo bi di participer di woote di may dédicace. c' que structure bi moo mel noonu rajo moo mel noonu. tey euh, musuma gis ku créer rajo. te du am ku la rajo dina am euh, benn paabu sama ko wax nee na ma rajo dafa am ñetti auditeur mm. koo xamante ni nii euh, wàllu diine moo ko ñor. Mm. koo xamante ni nii animation bi ñuy def moo ko ñor. Mm. mais am koo xamante nii lépp lu rajo bi def da koy neex. boo fi toogoon sax di wax ay AOI wala di def yeneen da koy neex. <laughs> non sérieux uh-huh. daf koy neex. puisque bu la neexoon nga toog sa kër di déglu son mais tey yow daf lay neex nga toog fii. Euh, am na ñoo xamante ni nag dañ ciy bëgg dañ ci jaaree am tur. puisque tey nga toog fii di may benn. Euh, kan laa yab sax ci groupe bi. xadi xadi Solja. non non Ablaye Diop jëbal Diop. <laughs> sama caroleur bi genre Ablaye Diop bi toog foo nga koy bëggee naan Ablaye Diop depuis euh, comment dirais euh, fu mu dëkkati sax. coofak uh-huh. xam nga après gars yi naan ko mais Ablaye yow Sol yow lay bëggee mun a woy xam nga moom sax dina dem ba benn instant xaw a xaw a kii nii <laughs> mais donc. Uh-huh. loolu lañ ciy jublu toog may dédicace. mën nañ sax ba ñu déglu son bi. Mm. mais toog dugg ci rajo bi bëggee. Mm. xam nga nuyu am di jàmm yi fans yi nuyu ñi nga xamante ne nii mooy say mbokk puisque da ngay da ngay nekk la man ñu ngi de passage ñu ngi euh, mm. côté IJEC noonu maa ngi leen di euh, c'est ma sœur euh, Salma Fall ma koy nuyu. Mm. di nuyu mm. donc loolu lañ bëgg quoi di maye dédicace di leen di dégg xam nga ñu ci di di di mais je pense bien que ni du son yi quoi dañ lay ñaan son sax mais ñu ngi ko yor seen téléphone. waay waay waay may ma Sidi Diop sa un un xam nga <laughs> wala may ma Youssou Ndour yi te affaire mais yooyu yëpp ñu ngi ko yor seen téléphone. Mm. mais son bi da leen di neex tellement que saa boo koy déglu du doy. Mm. defaa fois ngay toog di ko déglu multi reprise mais doo ci mës a doyal. Mm. léegi nag yow da ngay bëgg dugg ci rajo bi Souldia may ma son bi nga bëggee ci ñi ngi ci bëgg a bëggee. Mm. après ñoo ñu kontaan ñoom it des fois bu ñu toogee après jaar ci xam nga bëggee la yow it affaire bi man je pense bien que ni. Mm. à boole bi tam euh, ak euh, defar bi. yaakaar naa ni kenn ku ci nekk tamit yaa ngi ciy gis sa bopp ndax loo gisul sa bopp yaakaar naa ni doo ci doo ci dugg. Uh-huh. woo ni bu ñu ci gisutoon la woo de. donc je pense bien que ni euh, loolu la quoi mais vous devez son rek moom ko ko bëgg mën nga toog sa nekk. Mm-hmm. waaw. Euh, ba tey tamit képp koo xam ne tamit bëgg nga participer si waxtaan bi bëgg nga tamit oote bëggee Paco wala kontaan ci waxtaan bi wala am leneen loo ci yokk wala am leneen looy. laaj laaj ah <laughs> DJ Paco euh, mën nga oote en direct hein, ci 78 327 65 65 Univers FM Saloum. 104 point 8 ah ñu ngi leen di xaar ah ku bëgg a oote mun nga oote en direct kooku mm, ça dépend de vous ah. <laughs> Euh, tamit tamit texto yi tamit mun na di ñëw ah am problème voilà Paco. Mhm. comme tey jii DJ Paco ku ko fekk biir Nioro euh, naka lay dundee ak euh, fansam yi auditeurs yi auditrices yi quoi. bon comme ni may dundee sama kër rek parce que man soo ma sama kër bon happy mm, mm. duma, duma, duma ma du ma nekk koo xamante ni damay mel euh, xam nga rek liñ naan kanam kaso la mais kooku tëjal mu xam ko xaaral ma jël ko ma jël ko ci ligne bi <laughs> ah, jël ko salaamaaleykum oui waaw sant aha sama pako pako uyul allo ndiaye waaye ñu ngi gërëm yàlla gayen yaa ngi am jàmm na nga foofu waaye cool nii ñu ngi ci kawam rek di test si mais vraiment li nga wax am na solo trop am na solo mhm, ko ci temps noonu ko waxee rek doon la mhm. waaw bi moom jàpp te rek yàlla baax na incha allah dina baax incha allah lépp tamit lépp leer na ci ñun daal vraiment ni ñu ko defee naaj na trop ni ñu ko defee na trop mhm, ndax gis na ni yéen a bokk métier nii mais terewul da ngeen bëggante daal. waaw gis nga. Hmm. par rapport ak ngeen bëggante ko pare di dirante mbagg ba noonu di am ci diggante bi defu leen noonu de déedéet. <laughs> ko ci. gis naa ni vraiment Kaolack Kaolack euh, liggéey bi bëgg. Hmm. ndax ci ëpp ëpp dañuy mayante ay dirigeants. te tamit hmm. loolu am solo la. ndax bu ñu bokkee teen bi ku nekk di ku nekk sa baa nga yor rek li ngay génn rek moom ngay am. wallaahi. waaye dinaa génne te kenn du génne. amul fenn loolu bu yàggee rek xam nga. doo génne te kenn du génne. te du doxul société bi vraiment nice na gën leen a bëggante gën a jàppante lu ci waay bëgg yow la ko. allahumma amiin waay. en plus dama lay sa un bi hmm. <laughs> wax nga gërëm moo la Ndiaye sama un bi man. ah non soxla Dóor waxuma sa un bi yow de dama ne lan mooy un laa bëgg nga ko ci lañ ma dégg. ma wax la lan mooy un un. Ndiaye. waaw nga wax ko bu ma jël TV de te bu ma jël. Ndiaye <laughs> Ndiaye baal ma wax ko ko. baal ah, ma wax ko ko wax Ndiaye. waaw eh, ma wax la ah ah na gaaw de na gaaw eh? ah na waaw na gaaw de. wuy ma Ndiaye. <laughs> non Ndiaye du dem quoi. sérieux waaw waaw gis nga gis nga tamit lu mu jot a teg nii. Mhm. moom tamit borom baax la. vraiment vraiment borom baax la. am na keneen kuy fëgg ma jël ko allo. allo. oui. <coughs> ça va. non tey xool gën nañu ko daal parce que lii dara dara dara fay ko. Mm-hmm. billahi dara dara dara fay ko ana Paco. maa ngi lay dégg Paco jëlal. allo allo oui. Oh, ça va bien merci kan la. Aliment Domo Soldia. Ah, ok. Aliment, comment tu vas Ça va, ça va, Nir. J'espère qu'il y Maulana. Ah, alhamdulillah. <laughs> Mashallah. <laughs> Mais man, len rek la dama Mhm, allez-y. Mhm. Ñu ci Mhm. na do Ah Ak ki nit ñi mhm. mais gis nga àddina nit ki rek moom mooy gëm boppam. Mhm. am lu bëgg ak li muy bañ. dëgg la. parce que tamit boo nekkee si milieu boo xamante ne nii ñëpp dañ lay déglu wala ñëpp dañ lay dégg. Mhm. dafa am exemple boo xamante ne da koy joxe. waaw ah, surtout. naa ne am na foofu. Mhm. tamit parce que àdduna daal moom moo mel noonu parce que am na ñoo xamante ne am na ñoo xam ne dem. am na ñoo xamante ne tamit dafay dañuy bëgg nit ki. te yàlla tax. Ah am ñoo xamante ne nii dañuy bëgg nit ki pour mm-hmm. am ñoo xamante ni dañuy bëgg nit ñi pour. Mm-hmm. dara surtout boobu bëggoon naa ci ñëw surtout. <laughs> très bien mais yow personnel yaay xam yow ki la bëgg te yàlla tax. ah oui parfaitement. ak ki la bëgg ndax ndax moo tax. Mm-hmm. xam nga jigéen ñi moom mooy loolu. Ah, gis nga de jigéen ñi moom mooy loolu. <laughs> doo comprendre. <laughs> jigéen ñi daal doo comprendre parce que tey yow mën naa dégg Souldia nekk rajo.

waaw loolu conseil boobu daal laa amoon lu ma doon jox tamit di leen ñaanal yàlla rek yàlla na leen yàlla dafa jot amiin Alima <laughs> musal leen ci seytaane allahumma amiin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, tamit yàlla yàlla dafa def daal li gën ci yéen yàlla moo xam ne gën ci yéen yàlla na ko yàlla def amiin merci beaucoup. merci beaucoup Aliou ayca bon sol kooku dafa dafa dafa wax lu am solo. c'est ma fille c'est ma fille. dafa dafa wax lu am non sa doom ji yar nga ko. am Amna, amna, amna éducation amna na tamit savoir parler. donc ci côté bi mu waxee am na milieu boo xamante ne dama ko ciy rejoindre. muy da ngay nekk ci milieu bi comme seen mbokku jigéen ñi dañ lay top pour ben affaire. Amna, na ñoo xam soldat, tey Souldia dañ lay bëgg ngir te yàlla rek tax. Uh-huh. li ngay def mu neex leen. Hmm. parce que da gis ay kilifa man damay damay toog démb rek la mujj. Hmm. maa ngi sama biir animation mais dama toog benn paa jógee dëkk xaw ma ban dëkk ñëw ci rajo bi uniquement nee na. Hmm. bëgg na gis Paco puisque li muy wax ci rajo bi daf ko neex du question sox damay tàgg sama bopp. Uh-huh. mais damay wax te yàlla rek a tax. comprendre ñëw ne uniquement man la bëgg kii mais daa après dama def pause ñëw. mu ne juste dama bëggoon ñëw bon ñaanal leen gis rajo bi et damay dégg euh, ni ngay waxee ci rajo bi. Hmm. Euh, teg nga ko ci yar teg nga ko ci teggin. musoo hmm. euh, wax ba dérapé hmm. musoo wax ba kenn ci gis si boppam ma ne ko du ñàkk nag am ñu gis seen bopp. <laughs> puisque wax yombul. wax yombul du ñàkk nga gis ñu gis seen bopp mais. lépp lu ñu wax rek ku ci gis sa bopp ñu ngi jéggalu. Uh-huh. ñu ngi jéggalu. bon loo loo loolu mooy. <laughs> loolu mooy liggéey bi sax loolu mooy liggéey bi. Uh-huh. di ko moom wàllum lekk rek. lekk rek jaañ la sant moo tax am na kuy fëgg am na kuy fëgg ma jël ko allo salaamaaleykum. salaam kontaan

merci beaucoup. Mm-hmm. Ah, ah gis nga. ah. ah. <laughs> teg <laughs> na tuuti caay caay <laughs> ma ne ko moom moom nit ku baax lu ne la may wax lu ne la may wax. <laughs> toq caay caay la làq toq caay caay. ay mu tooñ. Mm. Mm. da nga bëgg mm. ko ci barke Seex suñu dund si yëpp rafet na trop. ànd na te am nga ci àdduna moom loolu moo fi am. Mm-hmm. parce que nag bëgguñu ñuy ànd. Mm-hmm. am na ñoo xamante ne nii bëgg ñuy ànd tey jii bañ bañ a ñoo dëkk. ñu mm-hmm. ne dañ ko fii gis am na ñoo xamante ne buñ daara ya dañ leen bëgg nañ la fekk bëgguñ la. ah oui. du yàqal la. dëgg waay waay waay. am ñoo xam ne yàq rek yàq rek yàq rek. toj kaas rek yéenay ànd yéenay xool ni ngeen di def. dañ ko dugg seen diggante. que tamit je pense que kenn xajul seen diggante yéen ñaar. mukk mukk mukk. ndeysaan. ay temps gis ku lay waxal lu baax ay temps gis ku lay waxal lu bon. ah oui du ñàkk. lépp rek xalaat boo xalaatee rek dina ci génn. waaw parfaitement.

sant. Pako celui-là. allo. Allô oui. c'est qui. Allô. Allô oui Marie Moi, lay soxna si. allo Je suis tonalité coupé na. <laughs> amul Je suis mm. xam. suis ah, <laughs> Salam oui. Thiat Ka ziar naa la. jaa jëf waay. Mhm. maa ngi nii. allo allo oui. ma ne waxtaan rafet moom seen waxtaan bi rafet na de. merci jaajëf. Mhm. leen ñaanal gudd fan wér gu yaram rek. amiin waay ñu bokk. ngeen sax di déggal nit ñi. Mhm. ah oui. surtout. ah. oui. ci lu merci beaucoup. <laughs> c'est gentil. Allô? Ah, loolu la de ki la bëgg moom jar naa ba ngir yi la encore oui. oui. ça va. ça va très bien. sant bu wër. naka matinal. matinal comme daab. waaw dama bëgg wax nag ci waxtaan bi. ah li ngeen wax mhm. ama li sama maam doon wax rek. Mhm. nee boo defee ñu wax boo deful ñu wax. maa la ko wax wallaay. loolu la ñuy wax. mais mhm. mm, yàlla baax na. Mhm. yàlla yàggal leen fi. amiin waay. nga. yow moom borom baax nga. yow moom wax dëgg borom baax nga. ndeysaan. xam nga ndax sa li ma lay wax. xëy naa sax xëy na sax xàmmeewoo ma. kan la wax ma tur bi. ah léegi nga daa commencé naax nag. numéro bi day daw quoi numéro bi ah Aïda ci loo ne. jaajëf waay. ok merci beaucoup Aïda Kanda ah. Aïda depuis Kanda. Aïda moom tamit waaw ñu ngi koy bëggee bu baax baax keneen a ngi fëgg encore salaamaaleykum. wala moom jaar naa la toogaay. jaajëf waay. di kontaane ah. Mm-hmm. waaw mais di mm-hmm. merci beaucoup. def nañ ko ziar lu bëree bëree bëri. waaye bro kan la. waaw xam def na mu benn temps yi. waaye fii la ma leb tuuti rek bàyyi <laughs> ah, <laughs> ñu ngi kontaan ci ci ah, merci beaucoup merci mm. beaucoup. waaw li gars di wax rek ñi ñi bokku teen te di got ñooy lafa waaw dafa leer mm. dafa leer te effectivement sa waaye xam nga rek mu ngi mu ngi man li may li may gën mooy que mu ngi bay waar bu naaj quoi que boole na ñëpp yemale ah mm-hmm, mm-hmm. gis nga en plus tey yàlla bu ñu ba xamante si xam nga xaw a seq benn relation bu xaw a ndaw ginnaaw yàlla moom la moom la waaw mm-hmm. moo def lépp di wax na yéen yéen a bokk nga ci bi kon yéen a bokk nga ci bi toujours dafa war a mën a naaj dafa war a mën a yaatu quoi leen di leen dénkaat leneen tamit di wax ne yoonu ndaw moom dafa nekk loo xamante nekk mën a gaaw quoi. non non non mm-hmm. ah, ah, moo xam muy rajo moo xam muy télé. Uh-huh. pour nga nekk ci doon star dafay gaaw dafay gaaw yomb. dafay yomb quoi dafay yomb mm-hmm. <laughs> mais mais pour man sama gis-gis. comme ah. lu mel ni rajo. Uh-huh. ak télé man dama jàpp ne télé mooy star mhm. rajo mooy star mais nit ku du star parce que boo mhm. xoolee sa bopp xool ni star rek après ñi la déglu di la bëggee dañuy bàyyi la ginnaaw boo xamul sa bopp mhm. dëgg dëgg dafa yomb tamit nga nekk ci animation ñi lay woo naan la yaa fi man yaa fi man yaa fi man boobu noonu mos a tax xam nga ngeen wane imposé non non non nekkul quoi donte yéen fi man sax bien sûr que ne nangul nañ leen ko sax mais nañ leen ko wax mais buñ ko li ngeen di def mu ngi naan trop wax dëgg yàlla. Mm, li ngeen di def lépp yéen a koy teg ci yoon benn xam mm. gars yi tamit terewul ñu ngi apprécié li ngeen def ñu ngi di déggee parce que fii nit ñi kenn moomu li mm-hmm. ngeen def loolu naaj tamit kenn. kenn du ko wax wallaay wallaay. Mm-hmm. waaw mais mm-hmm. man li leen di conseillé daal moo leen mooy que bu leen ko doxee. ko waxee mais mhm. gëm leen seen bopp. ah gis nga am ngeen visé seen bopp. effectivement am ngeen bëgg jëm fi ngeen bëgg jëm noonu ngeen ko gëmee rek. Mhm. ngeen fa yegg tout le temps. incha allah te ñun ñu ngi ci télévision yi gën mag ci àdduna bi. loolu lañ di ñaanal amiin amiin amiin amiin xale ngeen te ngeen li ngeen di ñeme ngeen quoi. allahumma amiin merci beaucoup. te que relation bi yàlla gën a continuer yàlla bu mu doon xam ne luy jaajëf waaw maa ngi maa ngi déggee gars yi xam rek gars yi gars yi parce que instant bi toll nii gars yi bëgg a dugg. bëgg nañ mais nañ leen bàyyi dugg def seen participation. ok moom gën nañoo kontaan daal franchement. Mhm. merci beaucoup. aywa rafet na ci kaw ci. jaajëf ok jaajëf jaajëf merci beaucoup. nee na daal lépp tur bi mais jarul may wax tur bi ah. parce que non jaru ko xam naa ne xam nga ko. waaw xam naa ko bu baax a baax a baax. bon merci beaucoup ci seen i contribution yaakaar naa ne am na solo moom it wax na loo xamante ni sol bu yaboo ñu bàyyi ci xel. puisque boo nekkee tey ci télé bi ak rajo bi je pense bien que ni bu ñu demee ñu naan star nga star nga doo star. tey balaa nga koy xam sol ñu dem ba ci kanam ñaanuñ ko yàlla mais déggatuñ la. toq appel dootoo ko gisati. tey bu ñu lay woo tey wala ñu lay envoyé texto di la nemmeeku. Hmm. je pense bien que ni ah, rajo bi moo tax. waay waay mais am na ñoo xam ne nag dañuy jàpp kóllëre. bu hmm. kóllëre xasee ba dañ lay téye te duñ la bàyyi. ñu la bëggal seen bopp mais ñi la bëgg ngir rajo bi affaire yooyu noonu suñ toogee tey ba déggatuñ la. Hmm. keneen ki toog mooy. ak kooku daw na daw na daw na. waaw continuer. <laughs> bon keneen ki toog mooy ak. waaw daal di kat wala. dem non non dem na ah, ah, dem na ok waaw bon pour ñu ci bàyyi xel comme li mu wax jarul di génn di ko doxee mm. mais affaire bi gëm-gëm la mm-hmm. nanu ko gëm nit ki yaakaar naa ne loo gëmul loo dem te kenn ki la bëgg jar na daw ngir fukki la bañ dëgg lépp looy def rek mm-hmm. teg ko ci euh, yar te gin mm-hmm. je pense bien que nii après yëpp lépp lépp li nga bëgg rek euh, incha allah da nga koy am mais eh. boo toogee di wane ni man nii laa mel mm. yaakaar naa ni doo dem de. mooy euh, xam nga xam nga tey jii fii kenn mënut ko non non kenn mënut te en plus dañuy dañuy jéem rek. dañuy jéem ay xale la dañuy jéem rek xam nga tey jii. tay ji soldat su toge nan suma toge matinal bi kendo lal affaire yoy mo ngi melni mo ngi melni mbeur yi rek. Ah, mbeur yi nan yow suñu jaxalo du. xam nga dama lay dóor dan la dama lay dóor dan la. da lay jar sax ñu waat waat ci kaw gis nga non lay demee quoi lolay lolay dil bi. ah mais c'est normal foofu nga tok xam nga. napp gaay yi xam nga gars yi foofu nga napp leen jël seen fit yi. waaw gis nga yow mi dara dara la de <laughs> allo. allo. maaleykum salaam. Souldia. oui. président des fans club bu Kuyré la. ja jaajëf waay Aliou Ba. ñoo ngi ziar. jaajëf waay. loolu mhm. nit ki noo rek yow la ah. Mhm. ndax yow la rek moo tax moo tax ndax du nekkutoon ci yow li yëpp du am. ndeysaan. Mhm. soo gisee ñuy ñuy former fans club Soldia famille fii Kuyré. ndax yow la. yaay def lu rafet moo tax ñu ñuy def ko. Mhm. mais doo defutoon lu rafet tamit duñ ko def. dëgg la. moo tax bépp animateur bi dafa war a roy ci yow. Mhm. ku roy ci yow rek day dem quoi. ndeysaan. ok mais ñu ngi kontaan nag dégg nga. jaajëf kontaan naa ci yow <laughs> Aliou Ba Aliou Ba depuis Kouiré président fans club Soldia family ah maa ngi koy bëggee bu baax a baax ah waa Kouiré yëpp maa ngi leen di bëggee euh, c'est que. Mhm. xam nga nee nañ àdduna. Euh, montre yu bax yëpp bokk heure. waaw loolu moom am na te tubaab nee na. dis-moi ton ami. je te dirai qui tu es. xaar ma jël ko ci ligne bi ma doog laa dóor yeneen kii nii gars allo. waaw waaw mais copain. waaw. waaw mais xam naa ne tey moom mënul yomb quoi c'est parce que nekkul yoon mu yomb waa Ciré yooyu doon di woote noonu. ñun dañuy def déplacement ñëw seet si leen. ñoom kuy ree. c'est parce que c'est parce que li ñuy woote si ñoom dëgg la quoi. dëgg la franchement li ñuy woote si ñoom dëgg la à chaque fois dañuy bàyyi seen i activités jënd seen crédit di woote tout le temps xam nga rek. ndeysaan. te te yooyu yombul quoi franchement mais dinañ dinañ ñoom danañu dalal ñun ñu dérangé wu ñëw seet si leen quoi wax leen mm. loolu ñoom ñu dégg ko. Ah. parce que ñu ngi si dégg ñoom. incha allah. mais mais mais di la foog. dafa am rek lay doon suñu waa ji. Ah, waaw <laughs> dafa leer. jaajëf waaw gis nga loolu la mais mais mais invitation après day am retour. day am retour day ah, am ah. retour après ma damay ñëw Nioro. non foog ma am retour waaw après damay ñëw Nioro. <laughs> match aller retour lay doon. waaw gis nga. championnat la. salaamaaleykum. maaleykum salaam. oui. man la Fatou Ngom Coof ak. Fatou Ngom Coof ak ziar naa la. maa ngi dellu ziar sa digg boobu moom macha allah lépp li ngeen xamante ni bëgg ngeen ko yal na leen ko yàlla defal. amiin amiin amiin yal na leen yàlla musal si cat. amiin ak saytaane yal na leen yàlla yokk. amiin amiin ci barke Bañes wax wax dëgg yàlla seen waxtaan bi neex na trop macha allah. merci beaucoup. dégg naa trop trop trop trop baax na jërëjëf. jaajëf jaajëf waay merci beaucoup. merci beaucoup Fatou Ngom. Euh, mooy mooy li ma la wax tubaab nee na dis-moi ton ami je te dirai qui tu es wallaay wax ma sa xarit ma wax la ki nga doon wax ki nga yàndal ma wax la ki nga doon it très bien salaamaaleykum allo oui kii xanaa ndekkee ko ça va bien waxal baax waay fay nañ la ñu ngi sant bu amiin waay. bëgg dara ba pare mhm. Mhm. merci beaucoup. yal kooku mu ngi waaj a coupé. <laughs> kaj kaj googu noonu. ne ko merci. mu ngi waaj a coupé. caaw caaw merci. <laughs> mooy mooy loolu ah. Uh-huh. moo tax euh, euh, fii Kaolack. Mhm. Euh, du ma ne man de. mais ñu bokk jikko yi animateur ñu bokk jikko ñi. ñoom ñooy ànd toujours ñooy ànd. Ah toujours. da nga leen di gis ce qui s'assemble rassemble voilà mm. gis nga bokk rek niroo waaw gis nga démb tamit ba nga ñëwee grand place ñu toog mm-hmm. jékki-jékki tamit ci la aliloo ñëw tamit toog voilà man non xam naa man game bi ni muy demee waaw waaw mais nag am na ñoo xam ne foofu mu am diirante mbagg tuuti <laughs> xaaral ba jël ko salaamaaleykum <laughs> yow la kan yow mooy mooy dugg ngeen bañ maa gis ko neexuma dara yéen ñaar fii xale bu yabaate bi la dafa yabaate. Eh, foofu ci la man maa ngi sant rek. sama <laughs> va alhamdulilah i wuy ma <laughs> waaw wuy ma. Ah. réponse nga bëgg. ma ne réponse nga bëgg rek. ma ne. Ah. sama un un bi ku ko moom. waaw xanaa yow. yow na <laughs> kon nag bu laajtee bu bu laajtee boo laajee daal loo am rek jëlal yaa laajte. yaa laajte. yaa laajte daal. merci beaucoup merci. li ngeen a ko xam yàlla na ko yàlla defal. amiin waay coppa ci pa. yow nag foofu mm, waaw. waxal <laughs> déwén waay waxal déwén waay. <laughs> wax eh, eh, xanaa yow. moo ko jox nga am tey. <laughs> la yow. ok jaajëf. merci beaucoup Fatou Fatou Soldia depuis Sàmm. ñu ngi koy bëggee baax a ah. euh, bu bëri lu baax a baax. Euh, bàyyi ma jël keneen kii tamit euh, salaamaaleykum. waaw léegi moom su demee bay ñaan du leen ñaanal di ñaan ndax mu ñaanal ku ko kese kii woo. <laughs> <laughs> ah waxal mais sol am na ba pare xam nga nag sol mënut amaat beneen te ñi amagul amuñ. non non non non. Euh, euh, sama bébé joli Sister Matafa. Mhm. nee na kontaan na ci émission bi. Ah, nee na vraiment fu mu toog daal xolam a ngi sedd guy. waaw sama bébé joli. Mhm. xam nga xol bee ngi congélateur quoi. tamit moom tamit <laughs> moom tamit dana am benn jour boo xam ne dinaa ko taaj fii. waaw c'est normal. waaw c'est normal dina am benn jour boo xam dinaa ko taaj fii. booy loolu. mais moom xam naa ne ku ko ñeme. Hmm. ñeme nga sa monsieur. non micro micro dafa garaaw quoi. Hmm. micro dafa garaaw ñu ngi koy nuyu de passage nuyu la famille si ñu ngi foofu ci diwaanu ah, ah. Euh, euh, Chara. Ah, nuyu naa leen ñoom ñëpp. <laughs> waaw maa ngi béggee Maguette Maguette maa ngi koy béggee bu baax a baax euh, depuis Tabangoy maa ngi koy béggee lu bëri bëri Kaas nag du du du moins. Hmm. voilà léegi loo yokk ci loolu yow. bon je ci comme ça point bu rek euh, Souleymane puisque comme ci milieu parce que euh, dafa nek milieu bo xamanteni jarul jarul puisque euh, yi man ay nit ki ci structure comme mi ngi melni ni kat bi wala kat bi lepp lo def rek boy dañ lay surtout quelqu'un wala quelqu'une célèbre lepp def dañ koy def Euh, loo sol dañ koy bëgg a sol wala sa say say say façon de faire ni ngay waxee sax ni ngay waxee dañuy dem ba benn instant dañuy bëgg yow ni ngay waxee ñi koy waxee tey boo toogee fii xam nga bu waxee ngay wax ay wax yoo xamante ni mooy da ngay toog génn ci mbedd mi léegi mm. booy di ko fooyee moo tax man dama yaakaar ni boo toogee mm. dafa war a nekk loo xam ne njëriñ lay doon. waay nit ñi tiré ci un bon exemple. Mm-hmm. Euh, mais bu mu nekk loo xamante ni ku ko dégg rek fàtt sa nopp. Mm-hmm. loolu yaakaar naa ni war nañ ci mën a bàyyi xel. d'accord kii a ngi fëgg bàyyi ma jël ko. allo. allo waaw. sant. sant bu wër ni waay. alhamdulilah. jaajëf waay. Euh, comme lii di njëkk a ko wax rek. rajo boo su nekkee. Mhm. nee nañu rajo bi moo tax ñu koy déglu. ñenn ñi xaw yi. ko. Mhm. Mhm. maanaam ngeen war a euh, boo xoolee ñu ñëpp dañuy dañu ko suñu téléphone. wallaay. mais du loolu moo tax ñuy oote ñun. Mhm. soit da ngay woote ngir. Mhm. bëgg rajo bi. Mhm. wala wa wa ilaa kii animé. te comme ni ngeen wax rek maanaam dina euh, ay animateur wala ay animatrice. maa ñëpp di benn. comme tey jii yow euh, di jëfandikoo. bu jógee Nioro yëpp ba fii. am loolu tey ak bu ko gën a rafet amul. te tey jii bu fekkoon te ni xam ne nooy mel moom kon doo doo ko invité mu ñëw. dëgg la. kon man li ma gis moo gën. Mhm. te animateur yëpp nekk benn. dëgg surtout. parce que dañ li l'union fait la force. Mhm. Ah kon loolu man loolu laa gis man. Mhm. kon tey jii moom koy nii kooku bu la invité woon ñëw da yem. bu baax man daal loolu laa gis. <laughs> te kooku moom nag. Euh, maa ngi koy jaar bu baax a baax. delloo jaar Ndiaye. waaw waaw waaw moom dañuy déggante ci whatsapp bi bu baax a baax. waaw ah, yow borom baax nga Ndiaye Diatta. wa baax la waa ji baax a baax. merci beaucoup c'est gentil. moom daal li ma leen di ñaanal. Mm-hmm. mooy daal yaa ngi fi moom xeet doole. allahumma amiin. yóbbu daal fu sa njot. Mm-hmm, amiin amiin. ngeen représenté Saloum. Mm-hmm. man loolu laa leen ñaanal. amiin amiin amiin. waaw nekk nekk nekk nekk nañ ci jàmm bu baax a baax. jërëjëf ah, jëf waay jëf waay jaajëf <laughs> jaajëf <laughs> bon tey tey émission bi nii lay demee ah. Mm-hmm. xam nga tamit chaque jour ñëw teg musique. day neex lool day neex lool. Ah waaye tamit waxtaan bi tamit. da ci am solo eh, da ci am solo quoi. Mm-hmm, parce que si lañ xam si lañ war a xam. Mm-hmm. réellement kan mooy nit ki. Mm-hmm. nit ki lan lay dund. xam tamit milieu bi lu mu laaj. ak milieu bi lu mu laaj parce que c'est pas xam nga li par exemple am na ku fi woote sànq ne ñoom ñi ngi def fan si club depuis xaw ma ban dëkk. xam nga loolu tamit euh, yaakaar naa ne c'est à travers la rajo. tey da toog nit ñi toog musuñ la gis mais dañ lay dégg à la rajo. mais dañ lay bëgg ba da leen di jaral ñoom ñu sacrifice wu seen dëkk. fans club. ah tuddee ko euh, Soldia family. Mm. Euh, def ko xoolal dañuy toog à chaque instant di réunion comme mi ngi mel ni xoolal groupe bi. bilaay bilaay defal lu ñu loo xamante nii jar na ko wala Paco defal lu leen loo xamante nii jar na ko. mais day toog ci rajo bi di di di def ay defam yu kenn xamul. gars yi apprécier bon te te fu mu taxawee ne la man maay Soldia nga xeeb ko. waaw gis nga foo gis naa loo ci njëkk a. eh booy mari sa tubay baax <laughs> Oui, ah, journal journal journal journal France qui lay def quoi sport. ah sport Moi sport ok Salam alaikum. Salam Salam Salam Salam Salam alaikum. ça va. ça va très bien. On oui merci, ngi ci jàmm Merci. Mhm. Wa ça va jigéenu DJ Paco ne ko kontaan nañ ci li merci beaucoup ñoo gën a kontaan. rafet na trop. jaajëf merci beaucoup. ñuy kontaan ci moom bu baax vraiment borom baax la su nekkee si groupe bi day kaas su soo jëree. Mhm. yéegal boppam est ce deful loolu. Mhm. am na ko yàlla saxal. amiin waay. fi ngeen ah, groupe bi jëm ca kanam. ah gis nga. déggee naa ñëpp. merci beaucoup jëf waay. ok la. Fati Gueye jaajëf Gueye Fati Kanda ah <laughs> d'accord borom hôtel Adjana ah ok jaajëf fay, rafet na fa léegi <laughs> um, am na keneen am na keneen ku fëgg am na keneen ku nekk ci oui ça va très bien man man lu tax jigéen ñi su wax ñoom du ñu wokk seen baat. ah gis xanaa nga sañ ko wax. genre genre Fatou Sol Diagne dañoo mën a doser nag. yow xat sa baat bi. xamoon naa ni moom la. ku wodoo laa meñ saa yu noppee rafle. Eh, wallaay. yaa yaa ñu gis de. Ah. wax suñu liggéey wax suñu liggéey. dana ànd ba ay këjëb këjëb. ñun ci wax ji la ñuy kiiyee. <laughs> suñu waxut xam. ñun ñu ngi sant di sant bu baax kay. Eh, ma raw la roppi la foofu la. gërëm yàlla bu baax a baax. déggu ma. li hmm, ah ñu ngi daal ñu ngi nii daal toog ñu ngi nii toog allo yi. maa ngi lay dégg faa. Ah, non yow yow kay yaa war a wax. nit ñu ngi wax di. loo bëgg. jégal Paco moom mais seen waxtaan neex na neex na trop. ah merci merci beaucoup jërëjëf. neex na lool sax. jërëjëf merci. mais Paco bëgg naa lu bëri. ñu ngi rëbëggee lu bëri. bàyyi rek yàlla baax na. incha allah. te sama xol ba am dese. mais xamal rek yéen ma gën a xam. xaw ma woo leen mënu ma la ñàkk ba nga woo. jaajëf merci beaucoup. waaye nekk leen si jàmm ah. ok jaajëf waay. merci. merci. merci hamburger <laughs> kooku tamit euh, mooy Fatou Soldia ah, ah moom tamit ndeysaan mhm. Fatou la tudd jël boppam daal di koy collect Soldia ah. ah. gis nga xam nga loolu Soldia ko liggéey rek waaw aw ma seen fay. <laughs> ay ñoom xadi bëggee lu bari ah, moom tamit depuis euh, Sine Saloum FM la woon ah. Mhm. ay année deux mille quinze seize yooyu noonu xam nga. Mhm. quatorze yooyu noonu ah. moom tamit aw ma fay ma. moo tax keroog ma ma sëgg di fóot. fekk muy fóot ma sëgg di fóot ah mais c'est normal ah, waaw yaa ma gën a xam ah, normal ay ay ñoom marem soldia mhm. ah ay ñoom euh, nabu soldia ah asu soldia fatou ah ñooñu ñëpp maa leen di béggee bu baax a baax ah waa fan si club bi ah allo salaamaaleykum ma ne xoolal gisoo man ah gis ma la toujours ma premier jour ba ma la njëkkee gis waaw dama la dégg ndax dama la yow ni ngay waxee ak sa baat bi ni mu rëyee ni nga yow noonu nga ndawee waaw waaw loolu loolu day am. wallaay <laughs> yàlla def loolu. mu ne. Moi ciao ciao ne ko ciao ciao. merci ciao ciao. soyez <laughs> soyez coupé. soyez coupé. <laughs> léegi euh, bon 11 heures passé de 12 minutes ah bu mu bi 78 Genni def def 327 def 65 65 pas léegi Paco. Hmm. gannaaw yow animateur nga. Eh. dama lay bàyyi nga animé dawal say dédicace yooyu noonu comme dab yaa ngi gën a xam. bon dédicace man kenn lay dédicace. xanaa ñi ñuy déglu ki ñuy déglu ñëpp ñi ñuy déglu. yaa ma gën a xam comme noo koy defee fële rek. waaw bon ñi ñuy déglu ñëpp maa ngi leen di béggee bu baax a baax. waaw boo jugee mag ak ndaw waaw képp koo xam ne rek instant bi yaa ngi dégloo. <laughs> maa ngi lay béggee. ah ñu dab. yow yara ani sama ma mari yebi ani sama ma attention man animé ma de yow yaay animé fu ne nii xaar ma jël ko ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. Mhm. oui. aji usa bu bees bi. Mhm. ayca mi ngi ñëw da love léegi léegi. yow ko love allo. ko love. Daaw na question bi de. ay ca ñu man ne ko namm naa ko. kan noonu. man man. man ndong ok merci. jaajëf. merci beaucoup. yéen a ma Aduh. tax ma di suma ay appel. allo.

suuf dafa baax. Mhm. su duggee si bi day wax ak ñun di tafal ñun am benn problème. Mhm. mais nag làq na tuuti caay caay. toq ko caay caay. <laughs> mu mu mu toq ko caay caay see ñàkk. Ah, waaw gis see ñàkk nag. <laughs> doo doo déggee tëkk wax. Ah. dégg la xam naa ñu ngi déggante si groupe bi mais xam naa xamoo bu baax. dëgg la kay dëgg la. ah gis nga yéen a baax rek yàlla di ñaan yàlla yàlla yàggal ànd ci allah mamin ok merci dégg naa si yéen merci beaucoup jaajëf cere des koy laalo ba mu saf ay yara yara ay ca la 104.8 Aliou oui ça va na nga def. tur bi naka la ak fa may woowe sa papa ngi lay dégg. maa ngi nii di la dégg. ça maa ngi fii. fii la ëppee. sant bu wër. Hmm, yow papa ma gën a baax. da moom bu dul woon yow moom xam naa ne moom.

Et ça se passe comme ça. Destination 12h les donne. Exactement 11h passé des 17 minutes. La 104.8 allô. Allô. Oui, ça va soxna si na nga def. ah waxal waay waxal de. gis nga ku wax doon laa mel ni buy noppi di doxee yaramu neen. waaw danañ wax nag waaw nanu wax ba mu neex jaajëf joyeur wax joyeur wax merci merci merci seigneur seigneur ay ci leen bay fal bi bégal leen ay ci leen séri soxna bégal leen ay ci leen bay fal bi bégal leen ci mbaram la 104 point 8 allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. yow la. Fatou Ngom Coofak. Fatou Ngom ma ne waa Coofak. bis rek maa ngi ko may Soldia. Soldia. maa euh, mm-hmm. merci beaucoup. <laughs> Aïe, noonu rek lay demee incha allah 78 lay doon 327 65 65 78 327 65 65. ayca ngeen di am duo bi DJ Souldia de kër l'homme de dégg il se nomme tout court DJ Paco. ne booy waane nga wane nga boy boy bay li nga def bay sax bay sax xel mi nga jouer petit camp baxna rek man nga bëgg piano sama xel wi ha non non duma ko clavier yow tamit ah baxna ay ja kim kim kim Allahumma nabal tuqa bi ay ja fi FM salum allo kooku nee na ma yi nee na ma dem <laughs> dem si du ko yàq ay ca ayca koy jox képp kuy béggee je ah depuis euh, fépp foo mën ci nekk rek Souldia Family nekk ci groupe bi ak di teewlu la 104 point 8 ay la 104.8, point 8

<laughs> Mmh. l'ambiance continue toujours comme ni nga koy waxee ah fii ci biir Universal lañ leen di joxee lan nga ni. li gën a lu gën a neex lu gën saf. lu gën a lu gën a la 104.8 Univers FM oui. Oui, oui,

Ya may ko jëkkër bu baax bëgg si àdduna moo ko xam muy dégg célibataire la fóot bu ah man yang yaa ngi ma doon ñaanal léegi maam jabar ko daal happy to to you dégg merci beaucoup maa ngi ciy seetlu daal maa ngi demande à Dieu. demande demande à Dieu bi bëgg dëppoo naa prospérité. mu dund ba am téléphone 33 10 de santé bu fi Youssou bu fi Youssou Ndour jaawee Youssou Ndour waaw nga mayal ma ko ko bu baax a baax a baax na di ko may képp koo xamante da ngay bëggante ah yow da ngay bëggante ni yow ni kenn man ni ah non non non man <laughs> sama papa sama papa mooy may yow mi dara dal la sama papa sama papa soo jaamu may may mooy sama papa ah kon Aïcha ok merci. merci merci merci. sama dey la ñaasi woo maam Moustapha sama joro sama dey la ñaasi yaami joob waxee sulu jaare ji bëggee tous les natifs de ce jour 17 octobre képp koo xam ne rek tey sa bésub judd la ñu ngi lay naan la happy birthday happy toto to you dégg xam nga bés bu dellu si dafa neex. oui dafa jokkoo dafa dafa dafa cokkoro boole à la ping pong. cokkoro boole à la ping pong. ay ayca ñu ngi naan ko happy birthday joyeux joyeux anniversaire happy toto to you. ay ayca ñu daal. dikkal.

ñu ngi sant bu baax a baax tur bi naka la ak fa may woowee. baal ma yokk kàddu gi tuuti soxna si. Ndey Fatou na nga def. ay cakan nga ci bëggee. merci beaucoup. Hmm? aha aha hmm. DJ <laughs> Soldia. damay dem ba diwaanu euh, jàkka jóg Kébé di ci bëggee bu baax a baax la famille Diagne Mariama Diagne mi ngi foofu kooku yaakaar naa ne sa siste la ak euh, Yande Diagne maa leen di bëggee baax mais sant bi rek a ko yàq. <laughs> Hmm. Excellente écoute Khadi euh, Khadija euh, Fall depuis Médina hein. mi ngi Medina, di ñu bàyyi actuellement nii ñu ngi koy bu a Khadija naan ko def nañ ko conteneur Exactement 11h passé de 25 minutes c'est au 78 327 65 65 78 327 65 65 Là, ñu li nga bëgg ñu jox la te doo fay a ah ma sa tëdd daw bay hey bada yi ni mi bigi di ma di daro ma ngi ko seen ma sa tëdd daw bay hey bada dara ding dara ding dara dara Amadou Yara man yéem Ibrahima ay rakoo Amadou Sow baax na la ay bajaan

ayca ñu na maa ko taal <laughs> ma fay ma ma dugal de. ay <laughs> ca bien di Sousa toi Yande depuis saax jam gën maa ngi lay bégee bu baax a baax ah Yande. kooku tamit kenn la ci man ah. Yande hmm, kenn la ci man waaw kenn la ci man. ñu ngi koy bégee bu baax a baax. kooku moom. waxanaa séeréer la Yande. macha allah Yande de moom séeréer laa jox. kooku kay moom macha allah. <laughs> yande naaf yo koy ka ñaaja fogale séeréer simna num mhm. ah fa nga yem de dégguma <laughs> ñoqle faaxa daa ñoqle faaxa maaxa faaxa tig ma xun ah, dégguma séeréer damay damay bañ ñu ñu ñu ñu génn gars yi tiim ñoo ay ngool de loolu laay ragal man amuma doole gis nga ni ma toll baax na baax na <laughs> C'est la 104.8 et allô ah, ça va Ça va bien, sûr, sort les. may <laughs> sant dạ. Ba yande la de. yande yande naafiyo koy. maa ngi leen rek ça va. kaa ñaaja. kon dëgg dag mbaa waxee na ja. ah ñaaja no paax waay. mais nun kene mbiya a fela ah Aïcha Ba. nun diino yo wala bor fanga ye. falaa yam waaw ngay foofu ngay mën a yam kay. nañ ko yemale gum foofu. parce que soo continué woon ma ba damay bax ban damay bax. ani sol. sol mi ngi lay dégg. maa ngi nii. Dia damaa woo ma tax naan ko de ah, de eh, mënul nekk nag kan nga am ñaari xol yow it moom. Ah. Ah. yow bëggal ku la neex. bàyyi sa xel mi ngay coqataan. wuy ma yaa moom sa xol bëggal ku la neex. waaye bu la eh, kenn nga mën a bëgg nag. maa bëgg Soxna maa ko man tamit man ay love you man tamit <laughs> xanaa déedéet kay dégguma lii de. waaw ay ca ba trop. depuis depuis depuis hmm. jamonoy c'est pas la peine la kay. waaw. macha allah kon yow loo def a loo deful. wuy ma yaa ma moom yaa ma moom. est-ce que du ma moomaale sax.

yaa defal neex. ah oui waaw man sama xol bi ma de. la 104.8 allez où. oui ça va na def. ça bien. bi ak fan astu soldia waaw xanaa as xanaa xanaa xanaa astu pako amul nag wala wala xarit pako wala wala ah ah yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi si jàmm. ay ca kan nga ciy bëgge. mais man déggoo ma kenn damaa kontaan tey si pélo bi. dafa ndeysaan déggal ma loolu. affaire bi naaj na trop. merci merci beaucoup. dara di courage ñaan jàmm rek. allahumma amiin. jaajëf fay. ça va day baax.

i dégguma <laughs> wax nga gërëm moo nag à <laughs> suivre à suivre Aïcha àndoon na nag Wally Ballago Seck ci euh, version medley fan la ñu dem nii Aïcha des ko yànd ak moom Queen Biz ci euh, Daddy Love jaax na ci nee na joxuma Daddy Love moom Fatou euh, Diop depuis Sam ñu ngi koy bëggee bu baax baax faatu Jalal te nga dugg wax ma ko love nag Aïcha ñun Aïcha, la 104.8, allô Allô, oui. Ça va, comment tu vas, soxna si? Ça va bien. tur bi naka la ak fan nga ni woowee. kontaan nañu ci animation bi neex na. merci beaucoup. man la Ami Diallo Ndiasse. Ami Diallo ni waa Ndiasse. maa ngi koy jox Soudia. Soudia jël na ko nee na. maa ngi la koy jël bu bëri merci beaucoup. Aïssata Diallo. Aïssata Diallo.

Allô, Ça va bien, merci. ça dadi Ça je merci beaucoup So yaay dade ba ah, ah amour, amul ay du la waxal ma amul li dara ayca merci beaucoup ça se passe comme ça exactement onze heures passées des euh, trente cinq minutes yéen a ngi euh, seen émission sunu yëf booy doo ñëw ñu weccoo dëkk weccoo la kaa ñu weccoo non baal ma nekk fa ma nekk kaay toog fii nii man ma dem ñooro booy fii xajuma fi ah, fii yaa fi xaj fii yaa ah, moom fii toogal rek nga géré <laughs> ande xawma lu ma lay jaay hmm. su doon taar la yaa ma ko ëppale xanaa déedéet kay daa di xawma lu ma lay jaay su doon tuur la yaa ma ko ëppale déggal la man de xawma lu ma lay jaay su doon alal la yaa ma ko ëppale ñun bañu tàmbalee ba tey la ma ma sa wax def nga ko daa bañu tàmbalee ba tey

lan lan xanaa yëgoon ne ñun ñooy <laughs> les enfants terribles. ñun ñooy les enfants terribles. du coin. yokk ci du coin. du coin ci ruq bi. Ah, <laughs> maa la raw bébé joli. maa ngi nii rek di la nopp. waaw hmm. tey. ay dóor la. ay dóor la. mais kontaan naa trop seen émission bi merci beaucoup. ñaanal kenn ku nekk ci yéen rek yow nekk yàlla ci yàlla saxal aussi nga am ci rafet quoi parce que moo jar a ñaan. ay yow ay yow ay yow ay yow tamit. yoon la tentative bari yaa ma gën a xam. courage la incha allah ça ira. incha allah. te yéen li ngeen nekk yombul mais li nga ko soxla waxee sànq nga nekk yomb. boo ci nekkee siiw. pour ñu siiw dafay mais aussi ba foo ci génnee rek nga xam ne lépp dëgg la parce que saa yi daf ma doon faral di wax naan ma mhm. waxu quel que soit le genre bu ah. lay mhm. wax dëppal sa loxo teg ko ci ginnaaw loxo bi ah bu waxee ba wan la ginnaaw nga wàccee sa loxo mu wàcc parce mhm. que ni mu ni nga ko defee noonu mu wàcc noonu la ay waxam di wàccee donte nag waxuma ñëpp a mel na mais am na ci ñoo xam ne dañu sincère dañ lay topp ba fànn. Mhm. même boo toogee dañ lay topp di. loolu lay sës ba ci mairie wis bi kay. <laughs> mais nag ils sont rares rares sont les gens qui font cela man ma toogee am na ci ñoo xam ne dañ ma doon woo. di ma woo foo xam mhm. ah ne ngay xaar pour ñëw. Mhm. benn ci moom soldat moomu. vraiment def ci ay démarches yu waar yaa ma gën a xam. jarul na expliquer parce que xam nañ. ci mu demee. xam nañ ni mu mhm. mais yal na yàlla sotti lépp quoi. allahumma amiin yal na yàlla defal ginnaaw geeg kanam yéen gën a xam. Mhm, merci mais pare ngeen jox ma seen ee bi ah. i moom laa jox ko sa bos. moom moom moom lu muy waxee seen ee du ne après Soldia nga jox ma sa ee. Eh, waaw comme yow comme yow kii am nan la koy waxee bébé suba bébé joli bébé joli jox ko sa bos rek ah. Eh, waaye su waxee nag ngeen jox ma seen bi kay kooku dama siy fiir. ah, ah da ngay fiir kay damay eh, fiir waaw ah, yaa yey de. damay fiir de damay fiir de seen seen da ngaa conjugué. waaw ah, dafa conjugué. waaw ban pa ban temps la eh, loolu. loolu ban temps la dafa dafa conjugué. ban temps da da da ne vous par hmm. exemple vous. Hmm. et c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est quoi. man nag damaa damaa nilaar nag. waaw ni la vous vous mooy lan mooy mooy. Euh, vous c'est deuxième personne. du pluriel du pluriel. non est-ce que du singulier. y a singulier y a pas de pluriel. Eh, masculin non masculin masculin. du masculin masculin c'est c'est qui. Ah. moo ngi oote waat sax bon ah. après dinañu corriger dinañu corriger. allo ah. allo. juum rek juum rek. maîtresse. juum <laughs> hmm. waaw. léegi jox ma ko yow rek laa bëgg a commencé ko bu ko xamante ne dinaa la ko jox dinaa la ko jox. <laughs> ah waay Samba dégg ma lii de. <laughs> jox ma ko jox ko jox ko jox <laughs> ko. non jàpp si ma ne tam bul mer dégg nga man réaction de réseau yow rek laa. Ah, waaw waaw meratuma meratuma. waaw yow je t'aime beaucoup. Hmm, moi aussi je hmm. t'aime je t'adore. I love you. My honey is flicking my touch, everybody. Yes, you know what I'm saying, man? Yeah. Ella ka angale ga ba lepp la la. Ici do pronto naaje pare na paj paj. Xana de len kay. de. Ah. my honey loolu angale la my honey is my touch, everybody. Léegi en wolof en wolof. mooy mooy mooy mooy sama sama sama sama sama sama mbëggeel ci yow. romb na foo xam ne nii. mënatoo mhm. ko dab. Mhm. moom mooy my honey is flashing my touch everybody yes. mën waxee ci indo ci indo. dégg naa demoon nga Inde temps yii quoi mois nga Inde. kaara nga jël kii ba pare bul dee bul dee yow tamit nag ah ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax di nuyu euh, Sista Matafa mi ci génn léegi nuyul ma. Ça Bombe mais toute la mi euh, depuis euh, Sarah. maa ngi bu baax di euh, Amadou ñom Mamadou ñep faire allo. may may may. ne mes ne mais hmm. mais il fallait voir soldat dans le studio. Wow. waaw waaw non gars dañu gis. bébé joli mama ma eh, bi kay jox la xaar ba après ki bi jallu yo tamit dadi love bi waaw ñu dem yow li ma la jaral wala chéri sama xol ya ma len gënal mom lu mu la jaral ah, ah lu mu la jaral eh, eh, eh. ah jaral ah. ma gol camion ah capté amion bari li ma jaral bari li ma jaral yow li ma la jaral wala chéri sama xol ya ma len gënal Daddy, that's my deal. What's it called? yow loo ko def yow da ngaa reewal waay. waaw waaw ba mu ma jëlal foofu yéegal loo koy defal yow loo koy defal. yow xam nga ne yow wàllum léeb rek maa ci toog. waaw loolu de ah yow tamit. Ah, su guddi jotee après nga defal ko lan. <laughs> nii rek eh, gannaaw du télé rajo ah. la nañ def manière yi rek. non ñu ngi may gis wuyu leen ma yéen ñi ñuy dégg yéen a ngi may gis nii rek. nii rek. Nah, yéen a ma gën xam waaw ku ci nekk rek nel nii rek fa nga toog rek nel nii nel nii nel nii ah <laughs> eh, acala ñu la man acala ñu la man yippi du da ngaa neex kon bu bees fecc bu mu bu ma bu jëlal jëlal sa def def sa di def nan fi nga yow nga koy mu lay ngay Exactement 11 heures passé de 43 minutes Univers FM Salut. le sëñ C'est une nga tur bi naka la foo woowee. na def ni waa Kër hmm, ñu ngi lu bari bari. Hmm, hmm. waaw ñu ngi gërëm yàlla bu baax def. merci beaucoup. Ah merci beaucoup. Adieu, fais l'âge. ah merci beaucoup Ah ñu ngi leen dire mhm. mm, bien des choses à vous. nante nga quoi bilaay wax ma lu la yitteel nante nga xaaral ba jël kii <laughs> la 104 point 8 Aliou allo na nga def hmm, ça va nii rek waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax dama bëggoon a xam foo leen jàngee français ak hmm, man nag Sool moo ma jàngal Sool mooy sama maîtresse ah la maîtresse man Sëwal mooy sama maîtresse. maître la ñuy wax. <laughs> xanaa déedéet kay. heureusement ba xale yëpp jàngi nañ école. waaw bien waaw te te waaw. moo leen arrangé nag loolu rek moo baax. loolu rek moo baax ko xale yëpp dañuy. non non maa ngi ma ko Fatou Ba yaaya. Hmm. merci. Aïka. <laughs> non, l'AIDM, 118, l'aide, 327, 65, 65, 118 et 327, 65, 65. L'ambiance continue toujours, hein. Nous Demain, nous, euh, toute la rédaction de l'univers FM, à quoi TVS. Nous, quelques journalistes, animateurs, techniciens. Nous, y un ak borom chinab bi ci biir <laughs> la 104 point 8 où oui ça va na nga def soxna si dégguma. ah nee moom it mi ngi lay déggee lu bari. waaw yow ngeen kan moo maîtresse. Solja moo ma jàngal mais sama. yow yow yow la damaa juum. yow maîtresse mooy yaay nga naan mooy yaay ci France nga naan. maîtresse mooy lan. yaay mooy yaay. Eh, mii bu la garab jege yëkki waay. Ah, yow xanaa déedéet kay. yéegal wala nga lool. mooy lan. looloo daal looloo eh, eh, eh, fii day day leer fii dafay leer mooy lan. Hmm. waaw joxal ma ko fi mu garaaw yow mu nga fay def dégg nga. Hmm. kan mooy animé ci yéen ñaar. ah moom. déet moom. moom yow yaa animé ah. moom moom moom. moom léegi yow laa ko def. <laughs> moom mooy animé moom mais. léegi yow yaa ngi animé man. ah waaw. merci merci. lan mooy lan mooy sa 1-1 bi. man mii mel na mii. damay laajte bi. ah dangay laajte. soldia maîtresse tontu ko waaye maîtresse mooy yaay nga naan nii waaw doo ko tontu lan mooy sa in su ma wàccee nga woo ma ci sama téléphone mu tontu la leer ma tontu la bu leer dégg ma xamoo numéro jëlal 77 159 24 50 ay ca woo ko dégg dina la wax lan mooy sa ngay sadik sadik lu rek. dafa rek merci zaaya coupé ah, di nga xam ne maa la gën a sadik. <laughs> yow maîtresse mooy yaay. maîtresse maîtresse maître mooy papa. non non maîtresse mooy mooy mooy mooy jàngalekat bu bu bu bu góor. waaye maîtresse mooy yaay. jàngalekat bu góor mooy maîtresse. suñ maître loolu la ma jàngale woon. ban maître la kan la kan la maître kii nii. kan Guèye Guèye. Guèye Ndioro c'est sûr <laughs> waaw. <laughs> mom moo ma sax. mom moo ma waxoon. Ah. kii nii eh, poftan. waaw ah. ni ñu koy waxee français yow da nga xam yow. poftan waaw. poftan yow mën nga wax lan moy xooñ ci français. Eh, eh, poftan xam naa ok. lan lañ koy wax poftan. waaw wuyu ma. Hmm? na la ko wax. waxal rek. na la wax. non kooku dafa ay de. ma ko gën ay aay nag. ci français. français di. Ah. pomme de la rue. pomme de la. pomme de la rue. <laughs> xam nga lu may laajte ci 9 minutes yi des. ku ma mën a wax mburu boo ko kiyee nii comment dire boo ko xaree. waaw kii bi ci biir nu ñu koy waxee ci olof ñuuxit bi. ñuuxit ku ma ko wax ci français maa la jox maa lay wari léegi 10 000 francs wax ma ko. xaaral rek ma xool dictionnaire bi yow may ma rek. wax ma ko boo xaree mburu ñuuxit bi ku ma ko mën a wax ci français rek. bon boo leen journaliste kër gi. xaaral rek bon je regarde ci dictionnaire bi xaar ma xool. voilà 10 milliards yi ni ma teg ba xaar rek na gaaw. dafa ndànk clavier bi. <laughs> bon bon. mooy acca. xar mburu xar mburu après li ci biir. dans le mburu. Eh. ah loolu la génne kan moo la wax nga waaye non du loolu de ah téye ko waay. la euh, kii nee na nga laajte. bon euh, c'est ma me montrer ici. Mhm. les brosés. waaw ah, brosé <laughs> brosé. <laughs> xam naa ne gëmoo ma nag. tu es nul tu es nul soldat. brosé brosé brosé luy brosé. brosé c'est du c'est ki ki ki kii dans le mburu. waxoo fi dara. yow waxoo waxoo fi dara. yàlla bi war nañ ko xoolaat de. boo ko trouvé daal dix millions yi. xaaral kii foog naa da koy tontu kii da koy tontu jël ko. kii da ko tontu allo na def dégguma. waxal sama papa ba xam ndax mën naa kaa laaj dara. la acca laaj ma laaj ma laaj dagan laaj ko. papa mën naa laa laaj ma. doo ma dóor. man de sama biir sama biir baa ngi dawaale ma. kan moom sa la ko doom yow doom yow ah, doom. <laughs> papa uyuma re man maa la war a utal kay moo ko moom rek utal ma aw mm. ma mm. ah, mane mane aw ma aw def ne papa ku eh, eh. moom ah, sa un papa yaa neex waaw ah déggal papa yaa neex dàq naa nii sax dàq naa nii de mu ne dàq naa ñi ah? <laughs> waaw waaw xam naa loolu. wuyu wuyu ma. waaw may ma kii bi dégg nga waale bi dégg nga I love you bi dégg nga. loving waaw. ah merci beaucoup. damaa nga doon gis moom. Ah. papa yaa neex. ay papa ay papa ku moom sa un un bi. papa yaa neex ah, ay papa maa lay wutal. man ma dàq nii. Hmm? dàq naa nii sax. wallaay dàq nga lu raw na. yàlla xam na ne dàq naa nii wallaay. <laughs> way <laughs> boy. Ah. nañ dem si lu ñu yitteel ñun moo gën moo gën de wallaay <laughs> Alors donc il fait 11h à passer de 53 minutes, 7 euh, minutes avant 12h. Ça nous reste 7 minutes hein, avant de boucler notre émission sous New York jusqu'à demain. Hein. Comme nous l'avons regardé, nous avons invité DJ Paco depuis RIP FM hein. et depuis Nyoro. Voilà nous dans hein. mu ñëw dalal sil ma ah ñu bokk benn néeg benn lal mais tërë di nga nag tërë di nga booy tërë di nga yow ku la gën a tërë dafa am yow ma ma xëyee ci biti laa la fekk xoolal ci buntu kër gi tey tey suba ba ma yeewoon ne la booy après nga delloo delloo bunt néeg bi mm. nga naam waa di ko bégee saa su ne <laughs> waa ñu ngi koy jox kii mbokk yi da kërëb kërëb baraka yow booy booy la def nii kay booy nekkoo rajo di gaan yaa ngi ci kaw lal bàyyi bu da waay mais mais dama juuma mais booy loolu. non xam nga xam nga rek euh, nu affaire kii bee ko mel quoi des fois toog sax yaakaar ni yaa nga ca. bilaay may loolu mais nag bu yàq sama dara loolu amul. waaw yow defoo ko. lu ma def tere di nga de. yaa ma gën a tere di. yow sax est-ce que démb yow kii yow yow kii bi. lan noonu lan noonu. waaye léegi kenn dégguñu waxtaan kenn dégguñu. ma dem dem waaw waaw. est-ce démb ci guddi. pipi woo laal bi pipi. sol jaa wuy côté la woon sa côté. côté la <laughs> côté ah, ah. la yow mi ma ko ko takkal yaa ma ko fompoon yaa ma tooyal. non booy. xam nga non booy da nga waroon jógee Nioro ñëw fi maa yow ñuy pelo émission yi ñu koy séddoo. en tout cas ah, mi ngi noonu daal. man man dafa super neex. ba léegi ba léegi man ku may wër laa laa gisagut pour Pello. Hmm. man li laa bëgg ku mu su ma la fëggee fenn rek nga wuyu ma fu xanaa déedéet kay. ah, ah en tout loolu. mu ngi noonu. ay ay da laa ko doon jéem a mais ay da dafa kii nii quoi. dafa dafa naas quoi booy boobu dafa naas quoi booy boobu ah, dañ ko sotti glace. dafa naas quoi dañ ko suuloon ci neige. maanaam mooy ah, yow mooy yow sool yow mooy yow. Eh. <laughs> loolu la la yàq di. ah yow Souleymane yow. dem fi laa ko fekk xol mu mel ni ganaar yooyu noonu kii ci. ay dala man damaa woor. ah baax na nii ngay woore nañ dem. <laughs> muy mel ni muy mel ni muus bu ñu sotti diwtiir nii. xanaa déedéet kay. diwtiir. Univers FM Saloum Aliou. looy wax nii. Aïe, ça bah, a coupé. <laughs> exactement 11h57 minutes, c'était en l'instant même. Yusuma Djigendour qui était euh, extrait de son album C'est une valeur. Donc, euh, ça ne reste que 3 minutes en sol mhm. pour boucler l'émission. L'émission. Nous me Ah, même même fréquence. Ni <laughs> seexandoo boobu démb nee na e bi maa ko moom. kooku kana. sama e seexandoor bi man mii. waaw. ah kooku kum doon moom. di nga ah yaa moom un e bi. Mhm, xam na mm-hmm. boppam. xam na boppam moo tax yàlla kan sax yow dem na da nga coupé kay. soixante dix huit trois cent kërëb kërëb jàppal bàyyi. ayca <laughs> donc sol mu mel ni kooku moo nekkoon dernière auditrice allô ah, sama bébé jolé nga oote dama ngay jël nii mooy yow ci émission bi la bokk allo moo koy tëj désolé kañ ngeen di tàggoo moo ñu jaaxal nag nii ngi tàggoo ñu ngi tàggoo nii nii léegi nii nii waa léegi sa e mu ne sa e, e kañ nga ma koy jox man wala ki ma jàkkaar la man sama bébé jolé laa yow am ah, yow benn wax su ngoonee su ngoonee dana la may sokoloko ah! su ngoonee dana la may sokoloko su ngoonee rek waxal waaw rek su ngoonee dinaa ah, la may man maay oote sax ñaan ko man maay oote fii en direct ñaan ko <laughs> man ma neen nga may ma sa un un bi su ngoonee dégg waaw su ngoonee yow booy booy ah. yaa ngi fàttaliku kii boobu woy boobu doon ban taay booy naa booy buñ naan ñu naan mari demal bale saal ba bale naa ko loo fa fekk man na rek anamu lekk naa ko cim yaa ya. fuqale <laughs> ya. wali balago <laughs> Yenna la lu apu sanjor Yeah, yeah, yeah. Aïe, bien des choses à toi, Max, depuis Medina. Depuis Medina Bay, hein? Mm-hmm. Max, man, les bégés, le bri bri. Young, welcome, Max ay ca man euh, man moom de toute façon damay tàggatoo après jox sa waay mu tàggatoo tëj ah. waaw su ko defee ñu ngi kontaan ci non ah. saa su ne képp koo xam ne jotoon nga fi oote en direct képp koo xam ne jotoon nga envoyé ay texto képp koo xam ne tamit yaa ngi bàyyi woon xel ah di ñuy déglu Univers FM Saloum. ay ca donc ça a été un immense plaisir de vous servir sur votre émission préférée suñu yof alors votre fidèle serviteur c'est l'enfant chéri de Sam Kaolack DJ Soldia alors DJ Soldia vous donne rendez-vous à demain inchallah même heure même fréquence. Allez, merci beaucoup. Ciao, ciao. Paco, mm. tu prends la parole. Aïcha, donc exactement 2h00 Dany Bégué qui xam un rek instant bi euh, sur la 104.8 leen jaajëfal bu baax a baax di wax ni euh, kontaan nañu trop toog partagé ak euh, say auditeurs auditrices mais tamit yow kenn du yow yow mi ñu dalal fii tey ñu pelloo di jaajëfal toute la rédaction bu univers avec TVS ñu ngi dit di kontaanee bu baax a baax Sine Saloum ñëpp ñu ngi leen di béggee cat ba cat góor jigéen mag ak ndaw ñaanal ak ah. waaw jàmm dina xëyee yendoo ko bu dee dëgg la yàlla na ko fanaanoo ayca lu nu am yàlla nu am yàlla waaye lu ñu ñàkkit yàlla nu am yàlla ko am yàlla ñàkkoo dara peace and love nee nañ fes And I want you to know I will be loving you, loving you, loving you till the end. bless me, yeah, mama. That's why I love you so. Someone gets a gentle, fresh, clean, so romantic. But sneaky taste that you're not jechna. Mm-hmm. Someone in the tutti kaide. No, no, back to I'm at the money, what you find in me? Eh? Something I am. Eh? what you did to me. Yeah. Since I'm with you, I'm done with trouble. Yeah. Now I'm stronger, just look at me. About you, I'm crazy. Bring me your body. Let me be a controller. Jangan ngama kek man. Sumber Let my papa lam. I will be Ilera mama sur Kuyi sayayi Yalla Dom la jabe Ma don samga Dom des koisa I will be loving you, loving you, loving you till the end